gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha tabax na ko fi ngir dundalaat xam-xam ni ko sëriñ bu mag bi jàngalee woon ak ni ma ko bëggee woon ci ñun kon ku ni mel bu la yàlla defalee nga jamononte ak moom nekk ci ron kilifteefam kooku xéewal la gu yàlla di maye xéewal nag bu la ko suñ borom di may léeg-léeg mën nga caa bañ a doon dara nga xam ne da ngay xëy rek yam ca ni ko sëriñ bu mag bi doonee xéewal ba Cheikh Sidiya Baba wax ko nga xam ne xéewal la goo xam ne ñun defaluñu yàlla lu war a mën a tax mu ñuy may sëñ mu ñuy baaxee sëñ bu mag bii defaluñu yàlla lu war a mën a tax mu di ñu dimbali bañ di ko xam defaluñu yàlla lu war a mën a tax mu di ñu dimbali bañ bokk ci ñi koy yaakaar defaluñu yàlla lu war a mën a tax itam mu dimbali ñu ba boole ñu ñi nga xam ne dañuy tudd sëñ bu mag bi di leen tudd ci lu nuru ak bokk loolu kon xéewal la goo xam ne am nañ ko ñun te duñ ci dara jëfuñu lenn lu ñu ko war a mën a may kon loolu yi mooy jëmmi Seex Muntaxaa ji rek kon sëriñ bi mi ngi koy ñaanal waaye mi ngi soññ mbokk yëpp mbokki jullit yëpp di soññ mbokki taalibe yépp lu ñu gën a mën a dolli ci ma jëmee ci moom ak ci di ko ñaanal ñu di ko def ndax xéewal la te lu mu fi gën a yàgg muy gën a baax ci ñun kon ñi ngi koy fàttali mbokki jullit yépp di ko fàttali mbokki taalibe yépp itam sëriñ bi nee na itam mu ngi fàttali njaboot gépp muy njaboot gi nga xam ne ñëw aju ci kër sëñ Masamba Kanni ak njaboot gi nga xam ne sax sañ na leen a laabiire wax leen loo xam ne bu ñu ko jëfandikoo danañ ca jariñu ndax fa dakkir inna faati ndax tey dakkaru saya dakkaru man yaxsha léeg-léeg fàttali boo ko defee dina jariñ ki nga xam ne bëgg na lu baax mu fàttalikoo ci ba tegaatu tànkam ci yoon wa ndax sëñ bu mag bi dadaa wax ni tuubal moom du dara lu dul dellul ca yoon wa boo ko waxee koo xam ne nag fa mu bàyyee yoon wa sori na dellu ca tiis ko kon li ci sëriñ bi di jublu lii mooy ngir nit ñi delluwaat rek fàttalikuwaat xam lan lañ doon ci suñ digganteeg suñ borom mooy jamono jii gis nañ lu baree bari ay ndaw yoo xam ne dañuy jël gaal yi wuti lu ñu am tax ñuy des ci ndox mi ñii seeni néew ndox mi da koy delloo si ci réew mi ñii seeni néew ndox mi da koy yóbbu fu kenn xamul seeni bokk di leen wër ba du ñu leen mën a tegati bët la ko waral nag mooy xëy yeewu jàkkaarloo ak sa wayjur wu góor mu néew doole magal nga jàkkaarloo ak sa wayjur wu jigéen mu néew doole magal léeg-léeg ñu diñe léeg-léeg ñu fande léeg-léeg du ñu añ mbaa du ñu reer léeg-léeg itam tey jamono ji li ñu ciy am akus néew faj ko jafe leen te loolee sax boo xëyee jàkkaarloog moom loola day xam ngeen ne lu metti la waaye nag loolu yégul ci jël sa bakkan sànni ko ci ndox mi ngir bëgg leen teral ndax teraanga ji ñu yaakaar ci yow boo jëlee sa bakkan sóob ko ci géej gi ngir wuti loo leen terale boo fa desee seenub coono day yokk ndax lañ doon am akus yaakaar akus néew ginnaaw bi seen kàttan jeexee ci yow lañ ko amoon géej gi fa kon bàyyi leen fi ak coono yoo xam ne day gën a yokk abadan daa iman sëriñ bi nee na loolu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax <coughs> sëriñ bi itam nee na ñi nga xam ne ñooy wayjur juri wet googu it nanu ci jël seen responsabilité ni ñu ko ciy jëlee mooy yaraat njaboot gi yar leen ci tarbiya ya xamal leen yàlla nit bu xamut boroomam mooy tax bu ko suñ borom xañee dara mu gis te nit ba jàpp ne doomu aadama booboo ko ko xañ bam jaral ko mu jàpp ne war naa mën a tayle bakkanam wala war naa mën a jël alali jàmbur wala war naa mën a agressé nit sax ngir am lu mu dundee doomu aadama bi boo ko tàggatee ci tarbiya ruuxiya bam xam dara ci yàlla xam dara ci sëñ bu mag bi lu mu ñàkk dina xam ne yàlla képp mooy ki nga xam ne mooy maye moom moo koy may lu muy am li mu ñàkk it suñu borom képp mooy kiy xañe mooy ki nga xam ne moo ko ko xañ an nafa wa durru min ar rahmaani laysa min al biidaani wa suudaani njariñ ak lor nekkul ci loxob kenn ku dul yàlla koo xam ne nag say dikk ak say dem say jug ak say toog sak am ak sak ñàkk da nga ci gis kenn ku dul yàlla su boobaa loo ñàkk da nga jàpp ne nit a la ko xañ te boo koy wuti wutin ko mën naa bañ rafet kon nañu yaraat njaboot gi ci tarbiye leen tarbiye ak lislaam tarbiye leen ci tarbiye gi nga xam ne sëñ aboo mii moom la doon waxtaane léegi muy tarbiye gi sëñ bi doon tarbiye mag ni ba nga xam ne yittey àdduna wala am amub àdduna wala cërub àdduna jaralu leen woon def lu borom di tere te wala tulqu bi aydikum ila tahlukati loolu la suñ borom wax ci alxuraanul karim te jël sa bopp dugal ko ci géej gi ngir wuti loo am wala nga wàcc ci mbedd mi ngir agressé nit jël bakkanam ngir bëgg loo am loole bokk na ci yi nga xam ne lu lislaam bañ la te àtte yi ci suñ borom teg lu diis a diis la kon sëriñ bi nee na kilifa yi nañu yabara yaraat njaboot gi ci wet googu jàngal leen diine waaye bu ñu ci yem nañ leen ci tarbiya ñu di ko jëfe màggaale ko ba nga xam ne dinañ mën a doon magum murit moo xam ne li suñu borom bëgg ci ab jullit dana nekk ci moom waaye li sëñ bu mag bi bëgg ci am murit dana nekk ci moom kon loolu yi bokk na ci yi nga xam ne waroon nañ koo fàttali njaboot gi sëriñ bi nag mi ngi sant bu baax mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ku mel ne sëñ Seex Baara Laak teew na fi démb moom ku mel ne sëñ Moustapha am sëñ Abdou yi itam yónnee na fi waaye ku mel ne sëñ Seexum sëñ Abdou Khadir ñëw na fi tey jii sëñ Siidi moom sëñ Abdou Khadir ñëw na fi sëriñ Moustapha moom sëñ Abdul ñëw na fi tey jii euh, suñu way jur suñu bàyyi bàyyi Mamoun Bousso nga xam ne mooy kilifa penc mii ñu toog di doomi Sëñ Mbàkke Kan yi te nekkal ko fi ànd na ak rakkam Baye Bassirou Bousso nga xam ne buñ ne woon màggal gii bu mu am ren gii du am ndax ñoo yilif kër gii na nga xamee ne mag ñi noonu lañ doon doxi ci seen biir noonu yi rek la ñuy wéyalee ku fi mën a nekk ci diggante ñaari kër yi muy kër Sëñ Masamba Kan yi ak kër Sëñ Mbàkke Kan yi te doon kilifa ga yaay boole ñaari kër yëpp yilif li nga bëgg ci la ñuy dox li nga bañit loolu la ñuy wan ginnaaw dem doxi ci la nga bëgg kon teew nañ fi tey ji ànd ak sëñ Abdul Ahad moom Baye Serigne Mbusoobe Buso moom sëñ Mbàkke Kanni ànd itam ak sëñ Maam Mbàkke Kanni ak njaboot gi yëpp bàyyiwuñu kenn dikk nañ tey ji yendu fi ànd ak ñun bis bi ba ngoon jot boole kook indi fi seeni teranga ak seeni xéewal kon sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm euh, sëriñ bi mi ngi sant bu baax itam kilifa yi nga xam ne teew nañ fi Euh, kilifa yi nga xam ne teew nañ fii tey jii bu ñu xoolee baas bi gis nañ kilifa yu baree bari bi ñu fi toogee ba léegi jóguñu yokkatuwuñ te yàkkamtiwuñu sëñ Abdou Samad moom Serigne Modou Fati Xëri ma nga ne toog ñëw na fi daaw sëriñ bi ñëw na fi daaw jéeg ren jii ñëwaat na fi yàlla na fi yàgg ñëw te yàgg leen fee fekk itam ku yittewoo boroom dëkk bii la ku yittewoo njaboot gii la doon koo xam ne at mu jot dafiy teew daaw daf ko jaawale woon ak bis bu mag bi ba ca suba ga bi bi teewut dafa taal otoom ànd ak ay rakkam ñëw ba ci penc mi booba fekk nga yeewi ko ba dellu ca kër ga mu ne dafa jàppoon ne bis bi tey jii la kon loolu day wane ne ak yittewoo kër gii la kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sëñ Abdourahmane Niang mi nga xam ne itam mu ngi ci sawet wet at mu jot nii la koy defee ak yow ànd ak yow bis bi toog ci sawet wet naam eh, xëy na dëgg-dëgg wérug yaram gi mu war a àndal sax ba man lu baree bari xëy na néewut ci waaye terewut lu metti metti dina toog ànd ak yow bis bi ba lépp jeex kon moom itam ñu ngi koy sant te di ko gërëm waaye itam sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëñ Alaaji Baara ñu gën koo xam ci sëñ Galas Kaltum moom itam at mu jot dina ñëw ànd ak yow bis bi tey jii ma nga ne ca buntu ba toog ànd ak ay teggin lool bañ leen sonal wala bañ a nit ñi moo tax bi ñu bëggee mu jàll si ci biir sax dafa gàntu ne fee baax na te wóor nañu ne bu fa fekkatoon ab bang sax moom ak mbaaxam ak suufe may na ko mu feranku laay ci suuf si ba yii fi jeex mu yeewikul boppam dem kon ñu ngi koy sant bu baax Mbàkke di ko gërëm ci teewaay bi te di gërëm mbooleem mbokk yi nga xam ne teew nañ fi délégation yi itam bu Tarqiyyah suñu Yuusu Jóob moom itam yable na fi délégation yabal na fi itam télé bi nga xam ne mooy Almouridiyyah TV ñëw nañ fi tey jii sant nañ leen gërëm leen bu baax ci taxawaay bi waa kër Serigne Ibrahima buso itam ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm euh, ak mbooleem Euh, almbusoo bi ya ñoom itam teew nañ fi tey ji ànd sëñ Abdul Ahad Bousso Thierno moo leen fi teewal euh, ak mbooleem dayre yi nga xam teew nañ fi waa kër sëñ Mamor Diarra daayira ahfadu Cheikh Mamor Diarra borom saam teew nañ fi sëñ Mamor Mbacke xam sa diine moo fi teew ak sëñ Mamor Bito ñoom tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbooleem njaboot yi nga xam ne daal euh, bokk nañ mbokk deret gi ñu yàlla boole mënuñoo lim ñëpp xëy na ndax lu baree bari la buñ ko doon lim danañ fi gën a guddee te guddi na ba noppi kon ñi ngi gërëm ñëpp te di leen sant di gërëm itam monsieur xar Xarma nga xam ne mooy sous préfet bu ndaam sëriñ bi bi bis bi jubsee dañoo demoon ci moom eh, yëgal ko bis bi bind ko leetar keroog bi fa délégation bi di dem dañ ko fekk sax moo naroon a ànd ak kilifaam euh, préfet bu Mbàkke waaye keroog dafa ñaan kilifaam googu ne ko may ma ma wax ak ñi ñaari baat gisee ak délégation bi laaj leen lu ngeen bëgg ñu wax ko ko sëriñ Moustapha mais moo leen jiite woon di sa rakk ñu wax ko liñ bëgg mu bind ko ba noppi bind ay lettre envoyé ko mbooleem service yi nga xam ne dañ leen di soxla ci màggal gi ba ñoom ñëpp li ñu waxoon li leen sous waxoon def na ko moom ci boppam it dafa waxoon ne dafa bëgg a ñëw fii ci màggal gi teew fi waaye mu am ay réunion ci préparation yi nga xam ne moom la ñuy préparé euh, élection législative yi di ñëw ba tax mu am ci ay réunion d'urgence ba munta agsi tey jii waaye dane woon mooy ñëwal boppam bu ñëwee teewal fi le président de la république teewal fi préfet bu Mbacké teewal fi gouverneur bu Diourbel itam teewal fi le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine kon sëriñ bi ñu ngi lay seedeel taxawaay bi nga xam ne euh, Abdoulaye Kharma moom nga xam ne mooy sous préfet bu Ndaam taxaw na ko ci bis bi ak yitte jim ko jox ñu ngi la koy seedeel te di la ko di sàkku itam nga ñaanal ko bu baax a baax a baax bind leen jox ma rek moo gën kon rakkam moo ko fi teewal bi mu demee ba munta ñëw it dafa yebal rakkam maam Cheikh ma nga ne moo ko fi teewal moom ci ngoon ba léegi mi ngi fi teew kon ñi ngi koy sant di la yóbbante itam kàdduy cant ci sa kilifa googu li ñu gënaloon mooy mu teew fi bu fi teewee ñu jël kàddu gi jox ko ko bu ko defee mu yëkkati ay kàddu ci turu kilifa yooyu nga xam ne mi ngi liggéey ak ñoom kon ñi ngi lay yóbbante kàdduy cant ak kàdduy ngërëm ci euh, ci sous-préfet boobu nga xam ne mooy xar ma ñi ngi sant bu baax itam sëriñ Abo Mbàkke mii nga xam ne moo doon def waxtaan wi bi mu noppee ba léegi mi ngi fi toog di ànd ak ñun bis bi keroog bi ma ko woowee euh, fekkoon na ko sax mu war a am yitte xam naa ne leeraluma ko waaye man xam naa ne mu ngi ci ay yitte euh, waaye dafa ci am ak mbégte ci ñëw fii euh, waxtaan fii waxtaan wu am solo wi nga xam ne wax na ko fi kon ñu ngi koy sant te di ko gërëm te di sàkku ci yow itam sëriñ bi nga ñaanal ko bu baax a baax suñ borom barkeel ko te yeggale ko ni aw yoon ak mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne ñi ngi ci Touba te di liggéeyal sëriñ bi ci toolub xam-xam bi nga ñaanal leen itam suñ borom yeggale leen ni aw yoon li mu fi waxtaan tey jii jàpp naa ne waxtaan wu ne daana fi am waaye wow tey jii itam am na solo lool te neex na lool te nit ñi itam dégg nañ ko ndax ku gis bi mu jeexalee réaction yi nit ñi doon def di nga xam ne li doon wax soxal na nit ñi yitteel na leen te déglu nañ ko te jariñoo nañ ko bu baax a baax a baax ñi ngi sàkku ci yow seen sëriñ bi nga ñaanal ko bu baax a baax li mu fi wax itam muy lu am solo benn baat laa ci wax doog a jàll ngir mën a daaneel sama kàddu mooy soññee na bu baax a baax ci wattandiku gi ñu sëriñ bi doon wattandikuloo ci par parloo loolu dafay lu am solo te bari na lu yàq loo xam ne par parparloo googu moo ko yàq ba ci suñ biir askan yii léeg-léeg parparloo bëgg a yëkkati sa maam wala bëgg sa maam gën ñëpp wala bëgg sa maam man ñëpp ci yow ci say wax yow dafay tax nga di wax loo xam ne bu ko nit ñi déggee ñi nga bokkal askan wi mën na leen a frustré wala mu andil leen mer te loolu li koy sabab mooy farfarloo loolu daf ñuy topp ba ci biir yoonu murit bari na ñoo xam ne tey jii da ngay dem ba léeg-léeg da jàpp ne léeg nga gis koo xam ne buy wax ci maamam da ngay jàpp ne bu dul woon ak maamam yoonu murit dara du sotti te yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne par parparloo moo koy indi te jàpp naa ne ku ne ci ñoom ñi nga xam ne ñëw àndoon ak sëñ bi ku ci nekk seetu nga ci sa morom loo xool ci kook ci kenn ci ñoom gis ci moom loo xam ne boo demee ci keneen ci lu baax fekk ko ca te ku nekk it ci ñoom am nga sa jagleeg bopp ci sëñ Tuubaa goo xam ne kenn fekku la ca loolu nag kattanuk sëñ bi la ak mbaaxamal ak yéemeem la ba ci njabootuk sëñ bu soobe gii nga xam ne ñoo fi ne doomi sëñ bu bi joo jël mbaa doomi sëñ saa xoolal sëñ moor soxna busu mi ñu doon waxtaane léegi danaa ci ñëw nga xam ne boo xoolee jëmmam tey liñ la fi wax nga dégg ko dangay ngay ne kii amul ku ko gën a jàmbaare ci ñi àndoon ak sëñ doon ko liggéeyal te mag ñi koo ci jël noonu lay demee kon jàpp naa ne li gën mooy nañu fexe ba bis bu set nañ jël kenn yëkkati ko wane ay jëfam wane la ko sëñ Tuubaa defal wane lam liggéeyal yàlla wane lam liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee nit ñi à travers kooku dinañ ci xam dinañ ci xam kennuk sëriñ bi dinañ ci xam ñàkk ndenduk sëñ Tuubaa waaye bu ñu ko bëggee teg rek ci manum lëmm man Abdoul Ahad su ma jógee lu may wax ci sëñ Masamba Kanni bëgg a wane ne moom kepp a mel nii wala moom kepp a baax wala moom kepp am cër su boobaa dafay indi may wax loo xam ne ci par parloo képp laa koy teg te saa bu ci parparloo duggee moom yàlla jeex na ca te bu ca yàlla jeexee wax ja dootul am njariñ kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax mag ñi dañoo àndoon ak sëñ bi waaye ku nekk ci ñoom liggéeyal nga ko sëñ ma Massamba Kane da koo liggéeyal ba mu gërëm ko jox ko ndigal mu sanc daarul karim gii li ko tàmbalee tuubaa ba ba ngay dem ba belal foo ci jël da nga fay fekk mag ñi sëñ sëñ Mbàkke Kanni sañci euh, kojale gii sëñ Omar Bousso sañci euh, tawféex boo jàllee da nga romb nay de sëñ Modou Moustapha sañc ko kon kenn ku nekk ci ñoom liggéeyal nga loo xam ne tey yi sëñ bi gërëm na la ba séddale cër boo xam ne yow kenn fekku la ci kon jëf jooju nañ koy wane te jubloo wane kenn sëñ Tuubaa gi ci seen i jëf ñoom ak seeni melo te bañ koo wane ngir di ko puukare woo te buñ ko wanee ba noppi nag ñun ñu xool lan lañ cey jëf lan lañ cey jariñoo ndax yëkkati sa maam it wane ko kese wax ak mbaaxam ak ay xar baaxam te yow jëloo ca lenn loo mën a roy jëloo ca jenn jëf joo mën a yalfandoo ba ngir mën caa topp ba xeeñtu ay tànkam loola it amul njariñ kon nañ xam ne kër sëñ ma Kanni këruk xam-xam la foofu laay soññee sama mbokk yi nga xam ne samay ñii samay rakk lañ ñii samay doom lañ ñii samay sët lañ te ñu nekk ci biir kër gi nañu xam ne kër sëñ Masamba Kanni këruk xam-xam la ku gis lii sëñ boo doon wax léegi seede ko ci sëñ Masamba Kanni da ngay xam ne ku amoon pastéef la ku amoon xaal la waaye xaal gi ak nite képp ko laloon ndax xasida ak jaayante gi mu def ci sëñ bi keroog ba mu jàngee ca sëñ Mor Galaay Jaw bay dem ci sëñ bi Muritani dafa wax ne mantiqat yi kal mi lil baaxil xadim waaye nag fii sunnatil muxtaari bil abdil xadim sama jëmm ak sama ruux sama lépp fab naa ko sóob ko ci yoonu yàlla waaye nag dama koy teg ci sunna wutit koo xam ne moom laa ciy àndal mooy kan cheikhuna ahmadul xadim saraftu himmati li himmati rijal wa himmatu rijali wajhu sil jalaal sama yitte jël naa ko yi def ko yittey góor yàlla yi yittey góor yàlla ya mooy ne dann seen borom kon ku mel noonu mbiram teg na ko ci xam-xam teg na ko ci sunna waaye itam xasida gi boo ko xoolee ba mu jeex loolu nga ciy gis li muy wax yàlla du ci ëppal li muy wax sëñ Tuubaa du ci ëppal li muy wax yonente bi du ci ëppal loolu nag lu am solo la kon nañu xam ne kër gi kërug xam-xam la ñun ñi nga xam ne ay rate lañ waroon na doon ay boroomi xam-xam topp riirum dëkk bi xëy na topp suñu bakkan ba amuñu xam-xam bokkuñu ci borom xam-xam yi loolu ñu ngi leen di xamal ne ku ko ci dundut mënoo xam euh, coof gi ci nekk ku ci mën a jàng te mën a am xam-xam jàngal ku mën a spécialisé wu ci ci ay domaines yu wuute def ko ndax ay jamono ngi yow joo xam ne ku ko ci defut da nga ko man fii ma toog di wax nii mën naa ko wat ci Sëñ Tuubaa bari na lu may rëcc loo xam ne bu démb doon taya duma ko def bu démb doon taya duma ci teel a dugg bu démb doon taya duma ko teela a ko teel a waxe du ma ko a doxe ndax dox na sama diggante ak xam lu ma waroon a xam dox na sama diggante ak jàng dox na sama diggante ak doon borom xam-xam te loolu nag yéene ko kenn ci kër gi kon na ngeen góorgóorlu ci xam-xam boobu te xam ne mooy seenub cër waaye boole ko nag akuk taalibe ndax xam bi lu mu bari bari bu àndut akuk taalibe du ngeen ko jariñoo kon na ngeen ko boole ak taalibe ak taalibe nag mooy di jëfe sa xam-xam di ko teg ci nite waaye di ko roote ci sëñ bu mag bi loolu mooy cërub kër gi kon njaboot gi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax fi may daanee la nag sama kàddu mooy sant njabootuk sëñ Mor soxna Bousso gi nga xam ne ñoom la àndal bis bii li tax ma mujjee leen it mooy bis bi day seenu bis ndax wax nañ ko léegi ci relation yi nga xam ne jaar na ci diggante njabootuk sëñ moor soxna gi ak njabootuk sëñ Masamba Kanni gi waaye xëy na jiitu na sax loolu ndax sëñ Mor Galaay Jaw mi nga xam ne moo jàngal sëñ Masamba Kanni ak soxna raama Jaw mi nga xam ne moo meññ sëñ Saa Buso bu ñu bokkul bàyyi ñoo bokk benn famille doon nañ ko gëstu doon naa ko laaj bi sëñ ma Masamba mi jàpp naa ne am na ñu ne sax ñoo bokk wenn wayjur kon kooku bu jàngalee sëñ ma Masamba yi def ci moom xam-xam ci ndigalul sëñ Tuubaa ca càlleen ba sëñ bi jàng xam-xam ba noppi bind sëñ bu mag bi leetar sëñ bu mag bi nekk Muritani sëñ bi ne ko nag ma fekk fii mu fekk ko foofu mu tarbiye ko kon lu mel noonu day mel ni relation bi ñuy wax yépp ci diggante njabootu sëñ Mor Soxna gi jiitu nañu ñun ñëpp jiitu na euh, doomi sëñ Mor Soxna yi waaye jiitu na doomi sëñ Masamba Kan yi kon bu ñu ñëwee ba agsi ci jamono ñuy bokkaat daara njaboot gi di jëlante ci seen biir tey bu ngeen ñëwee ci kër sëñ Masamba Kanni gi liggéey bu baree bari ba ci li ñu doon séddale lu ci baree bari njabootuk sëñ Mor Soxna Bousso gi nga xam ne dañoo bokk ci kër sëñ Masamba ñoom ñoo koy taxawee ci xam-xam bi ci yar bi ci teggin yi ak ci lépp loolu day wane na nag kon ñaari kër yi benn lañ du ñu ñaari kër day mel ne day nuru ne ñaar lañ rek waaye fekk na ne du ñu ñaar benn lañ kon bis bi dañ koo jël jagleel ko borom bis bi muy jël bisub sëñ Masamba Kanni bii jagleel ko sëñ Mor Soxna Bousso mi nga xam ne mooy borom bis bi kon ñi ngi suñu borom mu yàggal fi sëñ Fallou Bousso mii nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëñ Mor Soxna gi suñu borom guddal fanam defal ko ak wér yàggal ko ci suñu kanam ndax nit la koo xam ne ku xool ci moom te roy ko di nga xam ne rafetal sa bokk rek am solo amul benn buntu kër ci biir askan wii wu muy fëgg taxaw fa te lu fay kàddu duñ ko jël jox ko ko te loolu ak rafetalam doon ko waral bu defoon ne mën mii say wax nga di ci leblee ka fay bor amaana duñ ko ñemee jox kàddu waa fañ ko koy joxe dañ koy tànn waaye moom ay waxam du ci leble te du ci fay bor te lu man ci ràbbu euh, diggante bokk gi ñu yàlla boole ci biir ay waxam da koy def ci ab tànkamit da koy dox di ko jëfee kon ñun ñi nga xam ne ñooy ndawi kër yi bu ñu royee ci moom jàpp naa ne benn jafe-jafe du am ci suñ diggante te lu ñu danañu gën a may doole ndax bu ñu boolee suñuy doole suñ fallu da ko daa wax aljamaatu rahmatun daf ne woon aljamaatu mbooloo rahmatun luñ songu daan ko kon ñun mbusoobe bëriwuñu suñ saa busoo la ak suñ mbusoobe bëriwuñu mën nañoo boole suñ bopp te buñ boolee suñ bopp yi njariñ li muy jur kenn du xam fu mu toll kenn du mën naa amul tàmbali waaye du amub yemukaay kon suñuy discours na ci loolu di ëpp solo ñu bañ a fexe ba di ci di ci di ci wane loo xam ne dafay indi ak taqalikoo ci biir te ku dégg li ñu wax fii ci Sëñ Mor Soxna li ñuy wax fii ci seede ko ci ay ci ay jikkoom ki ko doon wax di sëñ maxtaar mais di nga xam ne kii kuy defar la te koo xam ne la waxam ji am na njariñ te penc mu ne it mën na faa toog wax ko fa ci sëñ Mor Soxna te ñëpp koy bëgg ñëpp koy déglu te loolu nag lu am solo la ci ay wax kon nañu fexe ba boole suñ bopp ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla boole ci askan wi loo lépp loo xam ne buñ ko defee mu jëmale askan wi kanam ñu di ko def lépp loo xam ne buñ ko defee mën naa indi ak teqalikoo wala ak ñàkk déggoo sax suñu biir loolu nañ ko moytu te di ko wattandiku bu baax a baax waaw kon loolu lu am solo la ci biir ci biir ci biir wax ji li tax nag may may xaw a insister fii ci lii may wax ci ñu gën a boole askan yi mooy euh, léeg-léeg jamono yële dama ko doon dégg ay bokk yoo xam ne dañ doon wax xëy na ci seen seen maam di wax ba ne moo sañ ci allié moo ko maye moo sañ ci daarul xadim gi moo ko may moo ko may sëñ Masamba Kanni moo sañ ci kojale may ko sëñ Mbàkke Kanni moo sañ ci tawféex may ko sëñ sëñ sëñ Omar Bousso yooyu nag bokkut yi nga xam ne yuy defar la ci biir kër gi ndax mag ñi ku ci ne ci ñoom sa wayjur dalaa jébbale laataa ngay gane àddina loolu mën naa koo wax Baye Baye Mamor Say mii mu sëñ Ibra Fari man moo ma ko mas a nettali ne ma daa laajoon sëñ Abdou Khadir ne ko ndax nit mën naa jébbale njabootam gu ganeegul àddina sëñ Abdou Khadir ne ko ah kay mën naa nekk ndax sëñ Bousso bi defal na ko sëñ Touba kon njaboot goo xam ne ku ku ne ca ñoom laataa ngay gane àddina jébbale nañ la ba nga gane àddina yi nga jàngi xam-xam ba xam li ñëpp xam dem jébbu la ci sëñ Tuubaa liggéey ba am li ñëpp am sëñ bi cëral la jàpp naa ne li gën te gën a boole nit ñi mooy ñu xam ne loola cërub sëñ bu soobee la cërub sëñ saa bu so la cërub seen wayjur la ak seen i maam loolu lu ñëpp bokk la te yow mal xiyaam ñun ñëpp a ciy jariñoo ci yërmande jooju kon loolu di ko yaatal mooy li ëpp solo jàpp naa ne te waa kon bu ko defee itam délégation bi nga xam ne mooy délégation Pastef teew nañ fi ñoom itam Euh, sëñ kii Gaye moo leen fi teewal sëñ Moussa Gaye waa gendarmerie itam sëriñ bi mu ngi leen di sant bu baax a baax commandant ñëwoon na fi tey muy commandant bu allié teew na fi tey jii sapeur pompier itam sëriñ bi mu ngi leen di sant ci suba ba léegi ñu ngi fi taxaw ànd ak sëriñ bi liggéey bi ku xam tàngaay bi ak ni méttee daanaka duñ tala sax lekk baa ñuy tala naan kon sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm waa sécurité bi itam am na sécurité bu fi newoon boo xam ne ñoom ñooy faral di ne ñooy sécurité jumaay Tuubaa ji ñoom itam ci suba ba léegi ñi ngi fi taxaw di ànd ak ñun liggéey bi kon sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm fàttewuma kenn euh, kon dafay mel ne yaakaar naa su ma juumul liñ ma fi joxoon lépp ci ay kàddu yu cant mat na bëggoon naa mu gën a gàtt sax waaye daa mel ne waaw kay presse bi ñi ngi sant presse bi bu baax a baax ndax sëñ Abdou Samatum sëñ Sohay bu ci lañ koy tàmbalee day jëmm joo xam ne màggal gi day màggalam kër gii di këram bi ñu jàppee màggal gi rek bañ tàmbali liggéey bi la ma ko wax ne ma loolu sama màggal la nañ jël télé bi indi ko fa lépp luy direct ci wàccaayu màggal gi nañ ko def bu ñu àggee ca màggal ga it nañ ko direct ba ñëpp gis ko kon sëñ Abdou Samad moom sëñ Souhaïbou ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax wane na liggéey bi nga xam ne euh, ci la bokk sëñ Amsatu moom sëñ Souhaïbou itam ñu ngi koy sant te di ko gërëm moom itam yónni ne fi ay doomam tey yii muy sëñ sëñ Abdoul Khadim ak Cheikh Souhaïbou ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm sëñ Abdul Ahad Mbàkke yitam moom sëñ Cheikh Gaynde ma ñëw na fi tey jii ànd ak ñun bis bi ni ki mu koy faral di defee at mu jot moom itam ñu ngi koy sant te di ko gërëm bu fekkente ne fàtt naa kenn rek ngeen gaaw dabu ma bala may daaneel presse bi nga xam ne itam mooy ku mel ne Mbacke Kadior TV at mu jot Cheikh Moussa Dieng sa doom la sa donga la yaa ko yar at mu jot dana taxaw ci liggéey bi taxawaay boo xam ne Euh, ñun ci suñ bopp sax dañ koy mujj yërëm am ci kersa ngir coono yim ciy àndal kon ñu ngi koy sant bu baax Mbacke Kadior TV di sant bu baax itam euh, Tawfekh Production Tawfekh Production di euh, sa taalibe bi ñuy wax suñ Mourtala Gaye di doomi Baye Bada Gaye moo ciy liggéey at mu jot da koy jóge ndakaaru ba fii ñëw ànd ak ñun bis bi ñuy may wax ñëpp ñu ngi koy def direct ku mel ne itam académie Minan mi ngi ànd ak ñun liggéey bi di di di Minan TV ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm ku mel ne itam Touba Vision sëñ Xaadim Seck ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax mu ngi jàllale liggéey bi direct télé bu mel na itam euh, Kojale TV di seenub sëñ bu Lahad Bousso Massami na fa ñëpp dem abonné ji ñu jàppale ko li ma doon wax léegi dompat ci sot la bokk te mbokk la mu ubbi teleem na ñëpp dem abonné Kojale TV ñu ànd ak sëñ Abdou Lahad moom itam mi ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax alxadimiya di sëñ Mbàkke Mbegere ñu ngi koy sant bu baax itam di ko gërëm moom itam ba liggéey bi tàmbalee ba léegi ñoo ko ànd am na sa njabootu bopp goo xam ne liggéey bi ñoo ci nekk muy ko mel ne Baye Jili Bousso mee di doomi Sëñ Abdourahmane Bousso mii nga xam ne liggéeykat bu mag la di monter di filmer di def lépp moom moo nekk Asamadia di ànd ak équipe bi équipe bu Asamadia bépp di di teew ci xew-xew yi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm jant bi FM itam suñ góor a Njaay ndaanaan moom tam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm rajo bu mel ne ii rajo yi tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax ñoom itam ànd nañu ñun ci liggéey bi kon euh, foofu la ñuy daaneele suñu kàddu